même justice bi nga xam ne Macky la a ramassé ses délinquants et mettre sur toutes les places stratégiques ñu ne ñun justice boobu la xaar ñu ñu ñu àtte est que xam ngeen lan moo tax Macky Sall di bàyyi bato yi di génn di bàyyi bateau yi di bàyyi pirogue yi di génn pour moom xale yu am jom yi xeex ci mbedd mi ñoom ñooy génn noonu réew mi non non non non ñi bëgg a tukki ñooy génn réew mi. ñi am fulla ak fayda respecté Ousmane Sonko gëm projet bi gëm président Ousmane Sonko kenn bougé wu ci maître dem Demba Touré Mali rek la nekk newul Barbados ak ñeneen ak ñeneen ña nga xam ne ñoom ñoo gëm projet bi Ngagne mënoon naa jël avion dem Amérique comme ñëpp mënoon naa dem France dem Belgique Allemagne fu ko neex déedéet il est au Mali xale yi gëm projet bi xale yi gëm Sénégal bëgg mu changé ñooñu ñu ngi toog sur place seen xol yee jeex nag dañ ma woo ñu ne ma mais grand Tounkara nous on est fatigué ñun naka ngeen ñu mënee wax ne Ousmane Sonko lii la wax ñun ñëpp ñu toog ñu dégg Ousmane Sonko li mu wax après suba Massamba ñëw wax loolu juuyoo ak li Ousmane Sonko wax ñu ne topp leen li Massamba wax sëñ bi ñun gàtt sa gàtt la ñu xam moo ñu yeggal suñu ñu jëm Macky Sall ba ñu ñëwee New York ñu toj def jobbu ndeyam gis ngeen ko bu réglé ne coc di lakkatu ci ay hôtel di transféré fii di transféré fële nañu bàyyi dof-doflu bi gis nga dof lu bi suñ ko bàyyiwul dañ ñuy jàpp def ñu ay xar dox suñu kaw ku caaxaan bam Amadou Ba ñëw Amadou Ba nous a bien dit moom ñëpp ñëw na wax nañu ko nee nañu buñ ko joxee nguur gi day bàyyi Macky mu gérer maanaam moom turam rek la fay def signé loolu la américain di ne koo saay na maanaam da ngay ñëw rek signé ne maa ngi fi waaye kan moom moom diw moom moom das da oona parce que comme crédibilité Macky Sall baaxatul nee na day utiliser Amadou Fa comme koo saay na Amadou Ba tamit ñëw nañu àdduna bi yëpp mu ne Macky Sall man bu ma jëlee réew mi yow laay bàyyi nga gérer yaay sama baay yay sama ndey yay doxal yow loo doxal rek danaa ko nangu si ce peuple sénégalais ne se lève pas billahi wallahi buumu njaam bi ba abadan ngeen koy takk da di doxant ci senegal bind tableau je suis un esclave j'ai un maître tout ce qu'il dit c'est ce que ndax loolu mooy am mais quand ce peuple se lève la fête est terminée benn groupe bandi rek ñoo jàpp senegal en otage benn groupe du Foucault ah. benn groupe délinquant Macky Sall à la tête et son deuxième dinaa leen wax leen Amadou Ba moo ëpp dànkote xaalis xam ngeen dànkote le Richard milliardaire nigérien l'Africain le plus riche de l'Afrique parce que lui la a gagné son argent légalement Amadou Ba moo ko ëpp alal ne leen nee nañu il faut déclarer ton patrimoine li ñu mujjee xool de bari na ci ay kontam sax turam moo ci nekk moom ba léegi foofu rek laa dinaa leen ñëw defal benn live bu spécial ci Amadou Ba dans les jours qui viennent détaillé leen am amam détaillé détaillé leen li mu moom ci senegal yëpp man nag duma ma waxantu lu ma amul ci sama loxo bii comme firnde du ma ko indi ay Boun Dionne Boun Dionne les papiers de Macky Sall ñooñu yëpp ay xaru Macky Sall lañ un imbécile comme Boun Dionne kooku lan la toj ak fan ba moom it nee na ma nga ca biir Aly Ngouille Ndiaye moom nee day déclaré tey moom it candidat la les plus grands voleurs du Sénégal marchent librement dans notre pays ils disent qu'ils vont déclarer leur candidature les fils dignes du pays qui n'ont jamais volé un franc du Sénégal ñu ne ñooñu mënu leen nekk candidat déedéet yéen dañ leen di tëj jaay leen doole ku wax ñu dóor ko man maa leen wax lii nee naa leen quand le peuple se la fête est terminée Quand le peuple se le peuple, Bougnou Djogé, la fête est terminée. On n'a pas besoin d'un million de Sénégalais pour nous déjeter Macky Sall. On n'en a pas besoin. Soxlawuñu un million de Sénégalais pour dégager Macky et ce gouvernement délinquant. nañu delluwaat delloowaat xel yi delluwaat ci suñuy route delluwaat ci suñu yoon bu baax bi voilà la légalité des lois loolu bàyyi leen ko ak ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey les écritures bàyyi ko ak bindkat yi waxkat yi ngeen bàyyi leen ak waxkat yi xeexkat yi jóg xeex mbir mi jaar na ci ay caaxaan peuple sénégalais naka ngeen mën a tooge ngeen xool Macky Sall cour suprême ni tama fa nekk mu def euh, maanaam ki nga xam ne moom moo nekk euh, euh, kii des juges l'imbécile la mu teg fa Maham Diallo Maham Diallo ak Ousmane Sonko naka la ñuy xuloo Maham Diallo jël Ousmane Sonko teg ko yebelu àdduna bi yépp ñu jël Ousmane Sonko yeewu ko taaj ko ci kaw Maham Diallo ne ko atte ko mais vous êtes si waa ji nekk euh, imbécile bi nekk cour d'appel kii moo sàccoon élection législative yi c'est le même voleur qui avait volé les élections législatives moom moo légalisé woon délit bi ñoom Macky Sall def Siré Ali Ba Ali Siré Ba quelque chose kooku la ñuy bàyyi ñu ne ñun dañuy toog xaar dañuy xaar justice Sénégal cette justice euh, sale boulot rek nga xam ne mooy seen liggéey Macky Sall a a pris tous ces délinquants et les a mis sur les places stratégiques pour lu ñu ñëw rek mu strike down yéen fii ngeen toog di bëgg a dal waaw bu ñu demee waw Pastef waaw les candidats waaw Pastef cinq maki Sall ak ñi mu teg benn doomu aadama ngeen jéggal ma kaddu yi nag maa ngi koy jéggalu ngeen jéggal ma waaye man lépp lu ma wax man la concerné Macky Sall du bàyyi benn doomu xaraam Macky Sall doomu xaraama yi mu tànn teg leen ci place stratégique yi du bàyyi benn nit nekk candidat il va choisir ses ses ses ses médiocre candidat Khalifa Sall Khalifa ak Macky ñu ngi wax depuis deux mille dix neuf masiba naaru laay bi ñu dal Khalifa Sall il est venu pour créer Yewwi Askan Wi pour atteindre Ousmane Sonko loolu moo taxoon mu d'accord ñëw bokk ci Yewwi Askan Wi pour gañe confiance Ousmane Sonko jaay ko Macky Sall sur le plan et plan bi jeexul parce que plan bi bakkanu Sonko la ñu soxla parce que tant mi ngi dundu maanaam ñoom gëm nañu ne il va prendre le pouvoir ñoom xam nañu loolu Macky Sall